chers téléspectateurs de Baol Times TV euh, dal leen a jàmm ak seen émission question de l'heure te nag question de l'heure ñoo ngi am mbégte ak kontante di dalal suñu conseil municipal bi nga xamante nii mooy Amadou Faye Niang ñu gën xam ci Vieux Niang salaamaaleykum Vieux Niang naka nga def euh, waa Baol Times TV. asalaamaaleykum Mor euh, maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay. di képp koo xam ne ñu ngi suivre Baol euh, bi ñu génn muy àllarba amaloon ngeen euh, benn ndaje boo xamante ne gën a waroon dox li nga xamante ni mooy budget orientation budget bu 2018 mu commune euh, ñuy xool ne ne maire bu Ndiarème daal à chaque fois dañu am depuis fi Malick Fall ñëw ba léegi jafe-jafe xaw a maanaam recouvrer li nga xamante ne moom la fi Jacques bàyyi woon ñuy pourquoi pas tey jii di aujourd'hui ñuy laajte lan moo tax tey maire bu Ndiarème maanaam di am jafe-jafe pour vaccination waaw tout à fait Mor li nga wax bon nekk na constat boo xam ne depuis l' avènement de 2014 euh, comme avec l' élection de monsieur Fall Malick en tant que maire de la jusqu'à nos jours effectivement le conseil municipal moom en tant que conseiller et le plus jeune ah ça on le PGB loolu la yàlla dogal donc euh, ñu ngi voté ay budget euh, de manière annuelle alors on se rend compte que vraiment am na ay difficultés comme ni nga ko waxee à atteindre les objectifs n'est-ce pas budgétaires parce que comme vous le savez l'équipe l'actuelle équipe bi muy doog ñëw vraiment ambition dans l'investissement de la cité taxoon na ba vraiment ñu amoon un budget de plus de deux milliards mais c'est un budget prévisionnel le budget daanaka prévisionnel. Mm-hmm. huit cent millions et moom amoon na ñu waxoon na c'est idéaliste mais booba. l'engouement de l'équipe la volonté aussi moo permettroon ak yi nga xam ne bu ñu ko defoon xëy na loolu mënoon na yaakaar et c'est trouvé que l'année suivante 2015 budget bi prévision bi xaw na wàcc à euh, un milliard euh, six cent et quelques l'année dernière aussi un milliard cent treize millions et quelques yooyu noonu la demee donc yooyu yëpp nag ñaar daf ñuy wax lu bon ni euh, li tax objectif yooyu atteindre mu di bu ñuy voté chaque année wala ñuy examiner avant ñuy voter les comptes administratifs du maire foofu da xam la réalité du recouvrement parce que compte administratif aussi dañ ci jàngatee taux de recouvrement bi ñaata la hmm. ak aussi la situation financière yi ñuy laaj chaque année ñu koy délivré donc yooyu wane na ne acte prévisionnel du budget bi eh bien li ñu xayma woon yaakaar ko mu di un acte de prévision duñ ko atteindre duñ atteindre sax vraiment la moyenne loolu nag li ko indi du lenn lu dul Euh, wax na ni am na ay fuite de recette ci dëkk bi wax na ni am na ay évasion de recettes wax na ni y a des a à recouvrer lu mel ni les tombes taxes des ordures ménagères les impôts sur le foncier bâti et non bâti loolu foofu nag c'est population bi tam xëy na ñoom ñi leen war a sensibiliser xëy na sensibiliser wul leen ba nu comprendre que ñoom tamit dañu war a mettre la pierre à l'édifice donc contrainte yooyu mais aussi de la part de la municipalité, euh, d'avoir vraiment une maîtrise réelle de nos niches Chaque fois, des collègues évoquent l'autorité administrative aussi devrait évoquer d'Inoukouniar. Mais aussi, vraiment aussi au niveau de la perception, ça pose problème. Parce que nous avons une volonté réelle à travailler, à, à relever les défis, nest du taux de recouvrement budgétaire, ça pose problème. Moi, j'ai partagé les responsabilités et au niveau de la municipalité, dans sa comptabilité administrative et au niveau de la perception municipale dans le travail de regroupement qu'il devrait effectuer et qui jusqu'ici laisse à désirer. Mhm. kon Amadou Faye Niang yaakaar naa ne li nga indi comme leeral kon bu ko xaymaa rek dafay mel ni kon euh, maanaam maire bi am na beneen taxawaay bu war a taxaw tamit euh, est-ce que kon euh, question bi ñu évoqué muy question de sincérité. est-ce que en réalité boobu kon tey jii mérité c'est-à-dire municipalité bi conseil bi euh, maanaam toogaan xool ci loolu xool li nga xam ne moom la njaaree mën a am c'est vrai que nag budget c'est c'est prévisionnel mais ñu xool li nga xamante ni moom ñu mën a recouvrir vraiment ñu ci angle boobu moo gën ñu voté un milliard un milliard un milliard doo ci mën a am maanaam six cent ngay am wala sept cent xam nga ce n'est pas juste la mairie de Diourbel mais la plupart des municipalités du Sénégal font ce qu'on appelle le gonflement artistique du budget artistique du budget. man jot naa participer ay séminaire de formation des collectivités locales maintenant on parle de collectivité territoriale mhm. mais expert dañ doon wax ni bu ñu waree jël exemple en ce moment ci mairie bi nga xam ni pour répondre ci sa question bi moom mooy soucié wu du principe de la sincérité budgétaire c' est la mairie de Dieuppeul-Derklé avec euh, n' est ce pas le maire Cheikh Gueye mhm. donc parce que moom euh, ay 600 millions 700 millions maximum lay arrêté n' est ce pas sa te yàlla nga koy dimbali mi ngi atteindre objectif euh, vraiment xam na tam li mu war a mën a investir xam na tam li nga xam ne nii day dem ci fonctionnement parce que toujours fonctionnement day occuper la part du budget parce que il en est ainsi de la nomenclature mm-hmm. parce que loolu aussi ce sont des dépenses obligatoires qui priment donc loolu moom nekk na donc man je parle sous le contrôle des autres collègues conseillers koo ci xam euh, wax dëgg yàlla defe naa élaboration ba ci vote budget ma fekkee yëpp j'ai toujours évoqué la question de parce que la sincérité budgétaire euh, euh, dafa war parce que c'est un principe sacro-saint des finances publiques à l'instar du principe de l'annualité ainsi de suite dans les finances publiques classiques et donc loolu dafa nekk loo xam ni normalement dañ ci war a tënku di ko appliquer ba nga xam ne nii budget ñuy présenter collectivité di ko voté muy nekk de budgets sincères parce que budget bi bu sincère rek da xam li nga mën a am maintenant nag pour les investissements bu ko yaakaar rek ci ce budget il faut aussi recourir à d'autres telle que la méthode de la coopération décentralisée, essayer de nouer des partenariats avec les PDF, essayer de, de faire des conventions avec les partenaires privés pour pouvoir booster l'investissement. Donc, mais trop rêver, mooy indi vraiment des fois, lui proposer des budgets vraiment, il m'a étudié vraiment, c'est des budgets bons. Vraiment, on aurait voulu qu'il en soit ainsi, mais ça, ça relève à la fois du, du surréalisme. Parce que dans le réalisme budgétaire, permettre. mais nag ñoom tey la municipalité je pense que tiré na les conséquences euh, gis na compte administratif yi ñuy voté annuellement di ko examiner ñu ngiy génnee vraiment conséquences yi ci biir compte yooyu di ko examiner en profondeur comme ci forme bi comme ci fond bi di ci génnee vraiment yoo xam ne nii mën na servir de leçon à ce que ko xam na ni léegi vraiment ils ont intérêt vraiment à proposer et à la cité et à l'organe délibérant des budgets vraiment au qui en considération le principe de la sincérité budgétaire. Mhm. parce que nag waa bët du yenu. waaye xam ne bopp wala boppaat tey. Mhm. comme moo di ne comme njaareem euh, maanaam budget bi ñu voté di ko jëmale un milliard ak quarante euh, tamit euh, ku mel ni maire bi waxtaan nañoo moom ci yu bëri da doon lebo lii ñu fay yenn yu bëri. loolu nag tamit jafe-jafe pour ñu recouvrir budget boobu waaye tamit bu xoolaatee fay ñaa encore benn question. li war a mairie bi yëpp chaque jour nga gis ay oto di fi gaare est-ce que loolu fuite c'est-à-dire ñooñu mënuñu waroon wala au moins fay loo soit fuite de recette les que mën a tuddee. Mhm. soit ay niche de recette yu ñu a mën di bàyyi xel di ko jéem a recouvrer et on laisse passer mooy sànq responsabilité yi ma doon ñëw xam nga yooyu ay moo yoo xam ne équipe bi xëy na daf ko fi fekk mais li ñu waroon def mooy lutter pour éradiquer ces mots là qui gangrènent n'est-ce pas le recouvrement budgétaire. donc yooyu dafa nekk yoo xam ne ça demande nag des moyens mais aussi ça demande pour dire la vérité la motivation n'est-ce pas des acteurs il y a de cela deux ans mm. au de la volonté évoqué woon naa au niveau de la municipalité la question de la motivation parce que pour dire vrai tam dans centre bien faire soo nekkee en contact avec les acteurs dana wax ni waa mais ah, honorable conseiller ñun vraiment mën lii dañ lay wax de yoo xam ne pour yow buñ ko mettre en dañuy euh, combler difficile mais boo ndigloo bu ci biir dañ lay wax c'est terme ah ñun nag vraiment dañ cee war a gis suñu bopp. man lañ gis suñu bopp mooy mm-hmm. la mun a dañ na war di motiver alors nag certes la motiv la motivation n'est pas de droit c'est une motivation de fait donc que man c'est une motivation de fait j'ai essayé de rapporter au niveau de la municipalité dans le sens rek que ñu relever des déficits boobu même si je sais que la motivation n'est pas quelque chose euh, d'obligé mais système financier boo gis tam neexal léeg-léeg da ciy am solo pour que nga am ay résultats alors man je me suis dit ah, alors est-ce que boo motivé wul da naan du ma motivé parce que de droit ils font ce qu'ils peuvent ak boo motivé même la motivation est de ñu indi résultat ban moom. J'aurais été des acteurs de l'organe exécutif, j'aurais recouru à la motivation de faire pour avoir des résultats dans mon Donc j'ai essayé d'apporter ça. loolu aussi aussi nekk na ci mais responsabilité bi toujours rek day nekk responsabilité partagée à la fois au niveau de la municipalité dans son agenda nest pas s'agissant du recouvrement des recettes ou bien du recouvrement budgétaire qui des fois son agenda diffère de l'agenda du pays e, de la perception municipale qui fait qu'il y a des écarts même si des fois on peut comprendre que ce sont des écarts normaux mais en tout cas à la fin on se rend acte prévisionnel budget bi ak li am dans la réalité daal wa wane na ni Diourbel wax dëgg yàlla mënagul a sax dépasser 800 000 c'est ça la vérité loolu la terrain bi révélé loolu lu papier comptable bi muy jox révélé Donc mieux vaut que ñu xam au lieu de proposer du artistique. chers téléspectateurs ñu leen di fàttali ki ñu mooy Amadou Faye ñaar le plus jeune conseiller comme ni ko waxee Benjamin ni koy woowee ñuy waxtaan ci li nga xamante ni mooy wàllu budget bu njaareem difficulté yi nga xamante ni moom la gars yi di am pour recouvrer vraiment li nga xamante ni mooy moom lañu fixé woon comme euh, prévision.